الشيطان الرجيم بسم naa bi ma santee bu baax ñi nga xam ne ñoom laa bokkal table ji ah, ki ci jiitu bi sëriñ faadal loo mi nga xam ne moom mooy jàngalem ah, diine ji ca daaree soxna jaara ma di ko sant di ko gërëm ndax ah, bu ma yeboonee bi ma ko waxee mbir mi ak léegi ci jir bi gàtt la loolu nag mu daal ñu koy nangul ñu wax fa wax bu am solo bi nga xam ne wax na ko soxna Jaara kon loolu dafa mel ne moom lu mu dund la man ko lool ba nga xam ne saa soo ko bettee rek mu daal ci wax te solo la koy sant di ko euh, sëriñ bi sëñ ma Lamine moom itam danañ ko beral cant bopp ndax dafa am taxawaay bu am solo bu muy taxaw ci daara ji mboolem nag ku mu nekkal ca ndakaaru ma nga lay xiirtal ci daara ji moo xam jigéen ñi la moo xam góor ñi la étudiants yi étudiantes ci koñ bu ne dafay dugg ngir di dajale ña fa nekk ngi ñuy indi dara ci daara ji te moom man xam naa ci dara sëñ Abdoulaye jox ko mais doo xam na ci dara fu mu toll dajale ci benn gox rek ñoo xam ne xam nañ na ñii ñu am pësteur la ma ne la ah, da ngeen na ngeen sasoon nangam ci daara ji kon ñu ngi ko sant di ko gërëm di am na ci xalaat man xam naa ne ku ci am xalaat la te ku ci am yéene la euh, sëriñ bi li nga wax nii léegi ci yar jigéen lu jafe la ndax bu dee góor li mu mën a àttan ci ay coon fépp ci jigéen ndax jigéen day néew doole jigéen li koy gaar day bari donte ndaw lay doon ci wàllu sante ci wàllu yeneen yeneen yeneen waaye li ñu ci nemmiku mooy bi daara ji sosoo ba léegi suñu borom mi ngi suturaat ak ñaanu sëriñ bi ak itam ak jàmbaaram ci daara ji ndax xale man de xaw ma xam-xam yu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ak ak nutrition ñi ñuy dundale xale waaye xam naa ne gone su fekkee dañ koy jox mu lekk ba suur te it xéewal lañ koy jox xéewal day am qualité dañ koy seet bañ nañ ki nga xam ne moom lañ jox wàññi muy dem bu demee la gën a cher te gën a baax lay jënd ca marché te gis naa ne projet bi nga xam ne moom lay sosa daara ji nga xam ne sëriñ bi dégg naa diirum ñetti at la ko teg di ko càmbar ànd kook ay borom daara ànd kook ay inspecteur ànd kook ñu bare bare bare ñoo xam ne xam nañ ci daara dara xam nañ ci jàngu àdduna dara bañ teg muy projet boo nga xam ne dañ koo tëral dara manqué wu ci yër naa ca projet boobee loo xam ne dafa jëm ci wàllu dundal xale yi nga xam ne bi ñuy soog a ñëw ci daara ji lu ne nañ koo natt peese ko ba ne xale sàngam war naa am nàngam ci meew xale sàngam war naa am nàngam ci ñebbe ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu mel noonu kon liñ ci jàngate ci ci rek mooy nañ leen du dundee la dund bu sell lay doon te dafa naa ne ab sayal bu dox bu accès ca daal di nga ko xam duñ ne dana neex de waaye dina sell ba nga xam ne nii ku ko euh, ku ci jëfandiku ku nekk bu ko buñ la xoolee xam ne damay tey rek ci ci ci tey euh, maa ngi recevoir euh, yaay daara yi jigéen ñi xam nga ne lu ñu xam dañ koy wax bokkuñu ak góor ñi dañuy yërëm seen doom ku accès rek ne sa doom mel nga wax te suba ba léegi démb ba léegi ku ñëw dana ah yow de seen xale yi soxna si ñoom dañoo dañoo diriyankee yow dañ seen xale yow xanaa yow moom daara ji naqaru ci yow ak yeneen terme yu yoo xam ne yu reeru lay doon ñu koy wax seen doomi bopp lañ koy wax kon loolu xëy na da yëg-yëg ñoom ne ko sax duñ ko loolu moo ci am dund lañ koy dund koo xam ne am nga jagadi sa dañ lay saytu nañ la war a saytoo dañ la daal di gaaw yóbbu opitaal bu dee jagadi goo xam ne euh, wax dëgg yàlla gu gu yam la rek am na infirmerie ci daara bi dañ lay seet léegi dal lay bindal garab jox la ko léegi ñu dina ko jox ba nga tane su fekkee jaaxal lañuy indi ko poste de santé bi nga xam ne moo ci nekk ci euh, programme te ki fi nekk moom tam ak ku fi ma a nekk rek da ngay bàyyi xel ci daara ji ndax sëriñ bi la nga xam ne bëgg-bëggu bëgg-bëggu sëriñ bi la nga taxaw ci heure bu la ne ayca nga ne ayca bu dee ëpp na foofu ñu yóbbu ba ñoom gis naa sax ñu taal oto fii di yóbbu ba Dakar ci kaay yi nga xam ne Euh, ëpp ëpp na ñooro ëpp na Porokhane kon loolu tam li ñu ci jàng mooy wàllu santé moom dañ ciy taxaw bu ñëwee ci daal dañ fa fekk ambulance bu nga xam ne dañ fi doon wax wàllu ambulance ndax euh, bëgg euh, taalibe yi bàyyi ci xel ñu indi ko ci daara ji dañoo far sax indi bu ambulance sax far danga naan ñaar ba ñett ma ngi ci daara ci daara ji fi ne boo demoon ñu tey dafa fekk ñaari ambulance di gaar ci daara ji nga xam ne heure bu nekk rek dañuy chauffeur baa ngi toog heure bu nekk xale boo nga xam ne aajo na ko dañuy mu dem yóbbu hôpital indiwaat ànd ak suñu sëñ bi nga xam ne mosuñu faa gis tam lu jaaxal te yàlla buñ ko fa gis kon xale lu mu nayif nayif lu mu lu mu naqare naqare yor bu fekkee wàllu euh, dundam sell na wàllu wér-gu-yaram yaa ngi koy saytu kon defe naa jafe-jafe dina wàññeeku euh, mu des njàng ma njàngum jigéen ku ne xam ne jigéen moom day gaaw a mokkal liñ ci seetlu mooy jigéen boo ko jàngal alxuraan jàngal góor gu jigéen ji mooy njëkk a mokkal xëy na mooy njëkk a fàtte waaye mooy njëkk a mokkal loolu itam moo nu may ñi nga xam ne ñooy daal jàng ci daal daanaka li la gis juróom-ñetti at juróom-ñeenti at ñoo xam ne fukk mokkal alxuraan goo xam ne bu yéeme lay doon ñi ngi ciy góorgóorlu sëriñ baa ngi ci def lépp lu man ñu nit ñi ngi ciy góorgóorlu ba tax na jafe-jafe yi nga xam ne euh, am na ko ci seen wàll doonul jafe-jafe yoo nga xam ne yu mën a euh, wax la ba mu xam naa sëriñ bi damay euh, bàyyi ko lu mu ta ñàkk nit bu fekkee ne bëgg na bëgg nañ dund bu bu bu fekkee itam bëgg nañ du jag ñàkk nit ki mu jiital xam-xam ndax jaamu suñu borom bala nga koo def def nga di di defin wu sell faw nga jiital xam-xam moo tax Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu bi muy rëdd surtout ndaw ñi limay ñëk rëddal moy rëddal leen yoon xam-xam téré bu ndaw ci gisin ti reey lool muy tasawru sixaar lum ci wax ya ayuha sibyaanu la tashtaghilu anil huda wa bil ulumi ishtaghilu ca benen ba ya ayuha subbaanu in qiftum khajal fa xaddimu taaluman ala amal alal amal kon nit balaa man dara faw mu jiital xam-xam kon importance boobu bokk na ci li xam-xam am dana tax nit defaru soxna su tedd si ñu doon wax léegi bokk na ci li tax mu xam fi mu jaar mooy tegu gi tegu ci xam-xam njabootu Serigne Touba gi bu jigéen gi surtout Serigne Abdoulaye tudd na ko léegi ku ne xam ne. ni ñu meloon ci xam-xam wala sax ca lu gën a kaw yonent bi sallallahu alayhi wa ci njabootam xam ngeen ne la waxoon ci ci Aïcha ne xusu nisfa diinakum min hadihi al umayra kon wane na xam-xam ne lu am solo la surtout nag ci sunu jotaay bi kon dañuy gën a isri ci ci jigéen Sëriñ loolu mu def ci lu am solo ci njabootam gu gu jigéen lu lu lu yéeme sax lu lu kenn mës a gis ñi ñi tuddee waa barsàq ñi xam ngeen ni ci nekk gi nekk ci kër Sëriñ Tuubaa am na ci ñoo xam ne mokkal nañu alxuraan ci biir booba ñi ngi ci kër Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu bokk na ci rek ma tudd ci ko mel ne soxna Jóob Mbàkke nga xam ne muy wajuru Sëriñ Mahamadul Murtadaa ci biir nekk gi mu nekk ci biir kër Sëriñ Tuubaa bind na fa juróomi kaamil loolu سيرن محمد لمن جور دغانا من كي واخ خط كتبت بيدها مصاحف تعد قمصدا تراك عارفا سون سوسو بوكون تي نيبوت سيرن توبا سونا فسيل لباس دي ويجور سون مومي باكي ñom ñi ñooñu ak ñu bari bari mokkal nañ alquran ci biir nekk nekk ci biir kër serigne touba radhiyallahu anhu kon loolu day lu am solo loo xam ne sëriñ bi wane na ko joxe na ko joxoon ko yitte yi nag mu ñoroon ko lool surtout jigéen lii sëñ lay tudd léegi bay tudd soxna bi muy bi mu bindee kaamil ba yit ko sëriñ Touba loolu boo demee ci sëriñ Moussa Ka radiyallahu anhu nga xam ne amna na benn marché bu martial ki don jangal sohna may muy sindou abdourahman kérok la nan mu euh kérok ba sohna khadi binde kamil ba yit ko serigne touba la ñaanal abdourahmana daan ne kérok la nan ko sant na la wér ngir sama doom yu jigen yi bi wat qur'ana cheikh sidi ya ma don ajar ba may soog ñew ngir ngir doomam jigen yi wat qur'ana lolu ma ngay dëggalee rek li nga xamne mom moom la te serigne moussa Ka tuddee fofu kon lolu importance bu am solo muy lu mun da ñàkk sëriñ bi itam eh, di ñu soññ ko ba egg ci sax ne bokk na ci ngir ñor gum ko ñor mu ne bokk na ci pexe yi seytaane di taxawal muy dëddloo sama taalibe yi xam-xam loolu itam bëgg ñu xam ne xam-xam borom loo am importance la egg ci ba wax ñu nañu ku leen di tare xam-xam mu ngi leen jëmee ci ak réer ku leen di tere xam-xam mooy ki sa seytaane ci kaw suuf kon loolu lu am solo loolu moo tax daara ji pàcc ginnaaw bi ñu mokkalee alxuraan ba noppi lañ ci teg mooy ñu jàngaleen seen diine jàngaleen aslaf ci itam ci loxol arabiya lu ñu mën a jëfandikoo ci ngir mën a yokk seen xam-xam soxna su tudd na ko léegi ginnaaw bi ñu mokkalee alxuraan ba noppi danañ jàng lenn ci téere Sëñ Tuubaa yi ak lenn ci téere yi nga xam ne dafa jàngale loxol arabiya kon loolu moo tax mu ñu boole ko ci ci programme programme daara ji kon xam-xam sëriñ bay ci nit bu fekkee ne bëgg na alaaxiram jag bu fekkee ne bëgg na addunaam jag mënut a ñàkk mu xam mu am xam-xam muy góor muy jigéen loolu moo tax ñu boole ko ci liggéey bi kon lu lu lu nit ñi war a bàyyi xel la rawatina ci jigéen ñi ndax ñu bari bari day jàpp ne jigéen moom xëy na wut sa sonni ci xam-xam déedéet waaye bu ñu royee ci Sëñ Tuubaa xool ci Soxna Jaara xool ci njabootu Serigne Touba xool ba ci ñi ma tuddoon léegi ba ci ñi nga xam ne ñooy waa bar sax mooy ñi nga xam ne mooy wayjuru suñu suñu suñu baax si ñoom ñëpp ci biir nekk gi nekk ci kër Serigne ñu baree bari ci lañ mokk alxuraan ba ñeent ñoom bind nañ ci ay kaamil loolu nag yaakaar naa ne mooy li nga xam ne tey moom la Serigne bi dee siwaat tey ci daara ju mel ni incha allah. jërëjëf xanaa ñu jàpp rek ne euh, yéene bi nga dox sax ci Serigne Moussa yéen a ngi amoon fexe ba ñu am junni turandoo maam jaar kooku bokk na ci liggéey yi gën a màgg yi nga xam ne moom la ñu war a def loolu nag moom mooy yaatal yaatal daara ji yokk jàngalekat yi tabax ay dëkkuwaay yokk matériel yi ngir ñi nga xam ne ñoo ngi ci liste d'attente bi di xaar ñu war a mën a dugg ndax ñi ne ci bi di xaar danoo bëri te soo xoolee ne euh, defe naa juróom-ñetti at ak juróom-ñeenti at ngay duggee soo toogee ci liste ba fukki at ñëw dootoo duggati kooku nag nag na ab gàllankoor loolu moo tax sëñ Isaaxa xalaat ne war nañu wut benn système boo xam ne danañ fexe wuti yeneen koppar yu wutee ak ñeenti téeméer yi nga xam ne jàmbaaru daayira maam jaare jàmbaar lañu ndax li ñu liggéey ba léegi. 6 ans juróom-benn juróom ñaar juróom-benn juróom-ñaar waaw d' accord <laughs> jërëjëf Ablaye merci kon euh, yaatal gi moom foofu la nekk. Euh, sëñ bi ne léegi nañu système mu parrainage parrainage bi moom dafa yomb ab barkeelu la boo xam ne dañoo jàpp ne euh, bés bu ne benn turandu maam war naa mën a téeméer war na ko mën a yor sëñ bi ne téeméeri fanweeru fan di nekk ñetti junni léegi koo xam ne da am yéene jàppale daara ji ci parrainage boobu nga xam ne day ñëw soxu ci li nga xam ne moom moo fi woon te ñu liggéey ko fukki at lu mun nga cee tàmbali loolu nag jafewul ndax euh, soxna yi wax dëgg yàlla taxawaay bi ñu taxaw ci liggéey maam jaara yi ba liggéey bi yegg si fii wax dëgg yàlla yéeme na léegi nag si mu parrainage bi moom soo ci amee yéene rek da ngay da nga koy fësal am nañu ay ay talon yoo xam ne ay soxna ñu lekk fii nga xam ne ñoom ñoo yoru système mu parrainage bi képp ko xam ne da nga am yi fes feñe sa yéene ci liggéey boobu mun nga dem seet ak ñoom ñetti junni weer bu dee nga taxawu benn xale mu jàng diineem am na ñoo xam ñu ngi jël fukki fukki xale am ñoo xam ne fanweer xale dañuy jël ci seen pas-pas seen bëgg a si juma. Wah wax dëgg yàlla euh, jàpp naa ne loolu jafewul dama koy misaal rek gën a sàggan man mi nga xam ma maa gën a sàggan ci wutum crédit yi ci téléphone yi nga xam ne bu ne téeméer ngay jënd ci Illimix bu nga jël ilimix woote woote ba sonn wax yoo xam ne lu ci bëri sew seete amul njëriñ te mu jaral ñu bés bu nañu jënd ilimix téeméer daanaka weer bi ñetti junni la waaye suñu ne ne maam daara daara maam jaare joxe ñetti junni nga ne ay si bi daa bëri man a téeméer yi mu jox doy na sëkk yoo xam ne mbirum àddina képp la mën nañoo fas jàpp ci liggéey boobu kon jafewul yéene la rek te yéene googu moom ku ci góorgóorlu soxna si dina la gàttal léegi tamit am na système boo xam ne euh, soxna si moom gën na cee ndax ñoom ñoo ne ci daara ji am na ñoo xam ne dañu indi seen barkeelu am ñoo xam ne dañuy dënd saabu ndax te daara ji mënut a ñàkk saabu xale dañuy sangu ñi ñoo xam ne dañuy wut euh, ay kol ñi wut ay yére ñi wut ay dàll te loolu wax dëgg yàlla jaxewul su ñu ñi organisé dinañ gën a mën a liggéey liggéey boobu yaa yaate daara ji nag dafay laaj nag communication moo waral

di liggéey ci benn banque bu ñu wax BICIS bi ñu saafante ak sëñ Muntaxa ba xam liggéey daara ji bi ñu demee suñu biir dañ ne léegi ginnaaw sëñ Moussa Bassirou moom dafa noonu yi lañ joxe ñeenti téeméer at bu ne ñun ñu ne dañuy joxe ñeenti téeméer barkeelu ci ñeenti téeméer sëñ Moussa Bassirou waaye dañ ko def weer bu ne weer bu ne ku nekk jël ñeenti téeméer joxe te loolu daanaka sax société ba ci biir mën naa ëpp loolu kon nit ñi suñu góorgóorlu tuuti war nañu mën a jàpp ci liggéey daara ji biñ ci doxee ñaari at banque bi ñëw CBAO ñoom tamit samp kuréel maam jaar ñu tax ci beneen at Expresso ñëw suñu siyaar bu mujj bi barki démb wari ci retof kon liggéey baa ngi yaatu ca ndakaaru ndax ndakaaru dafa nekk dëkk boo xam ne koom-koom ba taxaw na fa am na fa borom barke ñu nga fa borom xam-xam yaa ngi fa kon war nañu gën a fësal liggéey bi ca ndakaaru ba taxawal ay kuréel yoo xam ne dañuy ñëw ànd ak seen doole ñëw jàpp ci liggéey daara ji tey suñu woon société yëpp nga ne dañoo ne ci biir ndakaaru ñu ci bëri yu mel ne ay SICAP wala ay Sonatel wala ay Dakar Dem Dikk fu ñu fexoon ñu am ay kuréel maam jaara ñoom ñëpp ku ci nekk di ci barkeelu weer bu dee ñeenti téeméer su dee juróom juróom fukk ngeen at bi di ngeen indi 1 million yooyu ñëw tafu ci liggéey bi na fi nekkoon kon wutum koppar gi moom moo nekk li nga xam ne moo tey mooy tax ba daara ji mën a yokkaat ay jéegoom ñu gën a mën a taxawal liggéey bi te loolu société ba ci biir jafewul ñeenti téeméer weer bu dee wax yàlla a sàggan mën te ñun ñëpp mën ci kaw nag ñu am yéene gi ak taxawaay yi léegi nag liggéey boobu ci li ñu dox ci yaatal bi ci information bi ci fexe ba ñëpp xam liggéey daara maam jaara bi pour ñëpp ñëpp mun cee barkeelu ba liggéey bi ñu toll yem fi nga xam ne foofu la ko siñ ko yóbbee léegi de mooy suñu mel ni dafa tudd loo xam ne du ma ko mën tudd tant tudd ko bu tuddee nag faaw dinaa ko dëggal ndax man dafa faa nekk dafa gis mooy jaadu nag fu nekk dañuy yokk daal ndax da soxna yi sëriñ fépp foo xam ne ci Sénégal dañuy téléphone rek dara di lu manqué war nañu am temps am si ñoom faaw yu tudd leen am na ñuy joxe ceeb bu joxe saabu du ñu bàyyi itam soxna Aida Ndiaye tudd ñu ko ci jotaay bi ndax am na lu luy lu taxawoo ci daara ba mu fi jógee am na ñoo xam ne ñu ngi jël place di sa jéem seen gemtalaay gàttal kon li fi nekk nii li tax mu rafet mooy am na ñoo xam ne ñu góor ci góorgóorlu carte ñu ngi ko jënd ñu ngi laaj ndax saabu ñi indi pâte à dentifrice ñi indi saabu ñi indi dàll indi ñi ba nga xam ne la fa nekk ni ci aw bi moom ñi ngi leen di gérer na war waaye nag yëpp dafa dafa doon loo xam ne dafa ca jaar te it boo xam ne defar nañ ko ba mu am fukki at ak ñaar mii sax dañ ko ko war dafa amoon na am am te ba fa mu war a te it wax dégg ngeen sama wax léegi ñu ne dañuy déplacé xale yi dañu yóbbu ci hôpitaux yi bu ñu feebaree kon ndax jaar nañ kon ñu am fa loo xam ne dañuy fekk xale yi si biir daal ñu bañ a jaxasoo ci res boo demee boo liggéey mën ngaa di jàngoo ak yeneen yeneen yoo xam ne yu mel noonu loo xam ne loolu lépp daal di def ko ajiboo kon nag li mu wax rek lay dëggal ne jafe-jafe yi moom foofu la jëm mooy faaw dana dolleeku mbaa euh, nii mu toll moom dina rafet mais waaye bu ko mën a weesu te it comme ñëpp ngi góorgóorlu ku ne di def la sax ah damaa bëggoon de am lu ma jënd indi waaye nga danga naan xaaral ko ci kanam ma woo ndax xam ne am nañu fi indiwoon coton bi xëy na dina doy ci mois bi am ko indiwoon am na ko indi yi am nañu joxe ay téere waaye nag ñooñu itam am nañu yéene ñu ubbil leen xalaatal leen fu mën a gën a joxe carte yi aussi ñu ñeenti téeméer lañ ko wàcc ko par at te ñu bari wax dëgg yàlla ñu ci leeral nañ ko léegi lan lay doon ci at mi ak li mu faj ci daal ku ne xam ne ne ji ñaar ñeenti téeméer yoo nga xam ne daayira yi ñu ngi koy wecciku lu am solo nañ ci gën a bàyyi xel léeg-léeg nga laajte benn daayira mu ne man kat maa ngi doon jënd carte nga ne ko man carte la feneen foofa boo xam ne bokkut ak ci daayira maam jaar kon carte maam jaar daayira dafa mat a xàmmee ndax la ñuy jënde la ñuy yooyu faw day ñëw ci daara ji di def nga la xam ne mooy aju daara ji kon nañ ci bàyyi xel bu baax te it bu nekk di ci gën a farlu di wecc carte yi te léeg bi dina la sax ñeenti téeméer la yor léeg-léeg gis koo xam ne day ñëw joxe 1 million ne dagal ma carte barkeel ndax ndax carte barkeel dama nga fa euh, ak itam système bi ñu wax nii kenn ku a jël am maam jaar donte du nit ki moom a mën a jël maam jaar am na daayira au moins mat na fanweeri nit fanweeri nit yow kenn du jóg ne di joxe 500 par muy benn maam jaar kon organisation rek la laaj waaye ni ma gis nit ñi di di ci liggéey bi di ak ni ñu ko ku leen a gëm ci kanam. na ko liggéey bi organisation la laaj waaye itam euh, bëgg ngeen a yokk ndax formation. li nga xam sax ba ci biir lu mel noonu mooy état bi moom ba mu dooleel dafa participer woon. ndax jàngalekat yi fi nekk yëpp état bi moo nekk détaché ba ci mën a misaal kon loolu jéego bu am solo waaye nag a yokkaat waaw dafa gën a mat di gën a yokkaat ndax euh, dama fàtte sa waa formation professionnelle boobu noonu euh, dëgg yàlla gis nañ ko mu am njëriñ lool ci xale yi waaw kon jéego boobu tam xam naa ñàkkul kilifa yi ñu ci dox waaye ñi nga xam ne ñoo yor jéego boobu war nañ ci gën a gën a ba nga xam ne nii dana gën a dëgër àgg fa mu war a mën a àgg. sëñ Fall. Euh, xam ne liggéey la boo xam ne liggéey bu rëy te muy liggéey liggéey bi nga xam ni moo gënal seen tubaab liggéey bi nga xam ne moo defaloo seen tubaab nekk te mooy alxuraan liggéey bi nga xam ne seen tubaab defal na nit lu nekk jox na nit lu nekk te mooy alxuraan liggéey boobu nag bu nekkee ci loxoy seen tubaab ñu tudd ñu koy tudd di tudd soxna jaar di ko defee ci barab bi nga xam ne barab la boo xam ne bu am bu rëy la ci yoon mooy kon liggéey boobu liggéeyu kenn liggéeyu mbëri la waaye mën naa wax ne liggéeyu lislam bépp la ndax képp ku bëgg lu baax yaakaar naa ne war nga dugal sa loxo ci liggéey bu am solo bi di daal di mën jaar ndax at yu néewu 2005 ba léegi ay kaam yu bari yu jigéen génne fi mokkale fi alxuraan xamee fi diin diini defaroo fi ba mën a defaraat ñeneen ndax am réew kenn xam ne lañ ca buñ bëggee mu jag mooy faw ñu defar waa réew ma te xam-xam mooy tax nit ki mën te fii defar nañ bi ay nit ñoo xam ne boo ëllëgee bu ñu ci réew mi man nañoo defar ay nit ñu baree bari ñoo xam ne boo ëllëgee bëri na tey lu yàqu ci réew mi ku ne xam ne tey suñu réew mi fi ñu toll ñii yenn jikko yu yàqu yi yu baree bari di xew nit ñi di loraate seen biir lu bari di xew loolu lépp li ko muy ñu ko mën ko tudd lu mel ne rey bu bari geeg yooyu yëpp li ko waral mooy jikko yu yàqu jikko yàq yi nag léegi koy saafara mooy alxuraan te barab bii moom mi ngi ci tànk mi ngi ci liggéey boobu di defar société boo xam ne bu ëllëgee yaakaar ne dañ am nit ñoo xam ne ay Sénégalais yu jullite lañu doon yu doon ay taalibe lañu doon yoo xam ne itam ñu jaar fa Sëriñ Tuubaa doon jaar bëggul ñu jaar lay doon te Sëriñ Tuubaa ni mu waxee mu jaarale fa ak njabootam bu jigéen jaarale fi ay ay kéem ba tey jii doomi Sëriñ Tuubaa joo tudd tudd ci moom alquran xam-xam ba ñeent ci ñoom ay waykat lañu woon shuara di bind ci arab ku may mag soxna ñoom ñëpp nekkoon ay bindkat nekk nekk ay borom xam yoo xam ne ñoom ñëpp ci biir ci kër sëñ tubaa lañ njabootu sëñ tubaa lañ kon liggéey la boo xam ne yaakaar naa ku bëgg ku bëgg jag kon moo tax nag waaye duñ jeexal mukk nag te ñaanaluñ suñu borom dotte ay leeram Cheikh Mamadou Moustapha Bassirou mi nga xam ne xalaat bii moo ko am di ku jub xalaat di koo xam ne yaakaar naa lislaam jëmu ko ci dara di ko xam ni la war def lépp def na ko matal na ko kon yàlla na suñu borom di gën a dolli ay fayam ndax tey liggéey bu toll nii bu bu tollee fii rek moom ay yéenam la ba agsi ci loxo yi rakkam jii nga xam ni nag moom itam fa ko sëriñ bi bàyyi woon maa ngi koy gën a yokk muy fi amatu mu taxaar moom itam di koo xam ne ñun ñëpp xam nañ ko ci ak mbaaxam bëgg lu baaxam kon loolu itam duñu jeexal mukk te te fàttaliñu ko ñu mu nekk lu am solo loo xam ne yaakaar naa ku dib julli rek war na laa war na rey ndax xalaat bi yaakaar naa eh, ku ku borom xel mu rëy moo ko xalaat ceeb eh, suñu borom eh, am na nit yàlla yoo xam ne lépp luñ xalaat rek suñu borom jàppale ci suñu Moustapha yaakaar naa suñu borom eh, xalaatam bu boobu suñu na ko ci te loo xam ne ni ko yónni sama waxan mooy xaraf wu da ca fay fay ci say wujur kon yaakaar ne eh, ak itam koo xam ne sos na sunna su baax képp koo jëf dañ la ciy fay kon yaakaar naa ne mboolem muy jàng alxuraan tey ci daara yi loolu lépp yaakaar naa nag moom eh, suji suji bàja bàja kenn jël wàllam sëñ Moustapha Moustapha Bassirou moo ci njëkk jël na yàlla leeram kon sëñ Mbaye Thiam ñi ngi leen di sant ci bi ak mbokk mi ñu àndal sëñ Abdou Diouf euh, soxna Maama Dem mi nga xam ne moo euh, ànd ak ñun suñu Abdoulaye Diom ba mi nga xam ne fekk nañ fi moom itam di ñaanal baax nag si Abo Madiana Diakhate mi nga xam ne tey moo nekk ci bopp daara ji moo yilif daara ji ànd ko ak mboolem jàngalekat yi nga xam ne ñoom ñëpp ña ngi ca daara ja di ñaan itam ñi nga xam ne si Isaaka mi nga xam ne moom la sëñ bi teg loxoom ci lii mu def ci liggéey boobu solo bi nga xam ne yaakaar naa ne kenn ku ne gis na euh, li mu ci def ak li mu ci liggéey ak mboolem ñoo ko àndal suñu Cheikh Fatma ak ñun ñëpp ñaan yàlla yàlla jàppale leen ba lépp loo xam ne nii luñ bëgg a yéene la ñu xam ne daal murid yi taalibe yi ab liggéey boo xam ne képp ku bëgg lu baax képp ku bëgg am ëllëg lu baax ma nga ca dugal sa loxo soo bëggee ay xewal ñu ngi jégalu ñëpp di jégalu bu fekkee ne am na lu jum ci lu dëng ci wax ci ndax soxna Anta ni ko waxee daanaka diggante bi ma ko waxee ak mu ñëwee mutu 30 minutes kon du lu ma wàcc ndimbalu lu ci jub rek ndimbalu suñu borom la. waaye lu ci dëng itam ci man la. maa ngi jégalu baax asalaamaaleykum wa Euh, projet ak ëllëgu daara ji mi ngi tënku ci ñetti ñett fànn yi mooy tabax classe yu bees tabax ay dëkkuwaay ak itam centre de euh, équipé benn centre de formation professionnelle boo nga xam ni bu ñu jàngee alxuraan jàng xam-xam jàng loo nga xam ne te métier moom ëllëg mën nañ ciy suturloo ba duñu ba li ko dañuy dañuy ñàkk seen bopp ci lépp loolu lu am solo loolu ku ne war nga ko jàpp xam ni loolu mooy mébétu daara ji mooy ëllëgu daara ji sëñ Lamine loolu ah ñu lay laaj ban message ngay sànni sëñ Lamine ban message ngay sànni bu ko defee ñu ñu tënk rek jox soxna si mu tëj ñuy ñaan jigéen ñi suñu sóoboon yi ba ànd ci bu bokk taal bi bëri doo ko war a dalal cant ndax pas-pasam moom lu baax yi ñu liggéey suñu kër soññu nañ si lu bëri jàppale nañu si bëri lépp lu ci liggéey rek ñu ci li la laaj waaw tënk moom wax na ko waxaat ni gën ci jàpp gën a doole ko def kuréel su bëree bëri daara ji gën a yokk kuréel dañu war a mën a góorgóorlu gën a góorgóorlu waat ci liggéey xam ne daara ji dafa war am benn dimension lañ jël dimension boobu nag pour mu am il faut que kuréel yi gën a yokk kuréel yi daal dañ gën a sosu jàppale nit ñi te xam naa ne pas-pasu taalibe yi suñ ko noseere mën nañu am lu rëy ak lu bëri nit ñi dañu war a tamit soppi seen doxalin bu bëri ndax alxuraan mooy alal Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa dafa ne alxuraan ak xadiis ak ci bëri teel mooy suma doom kon sëñ Tuubaa ku am tawféex di liggéeyu sëñ Tuubaa ci daal alxuraan mën ngaa jàpp ne tey liggéeyu sëñ Tuubaa te damaa jàpp ne jaaree ci maam jaara pour am sëñ Tuubaa mooy gën a gaaw kon nag nañu góorgóorlu ci liggéey daal maam jaara bi ngir am gërëm sëñ Tuubaa góor ñi nag dama leen gën a soññaat ñu bañ a bàyyi liggéey bi ci dëkk fi dox ndax li soxla yóbbu ci maam jaara ñun ñëpp moo yóbbu dañ ci gën a góorgóorlu bu baax parce que jaayantewaat ak sëñ bi ci liggéey daara maam jaara loolu daal mooy kàddu yi nga xam ne naa ko nekk ci gisal bi mooy salaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf sëñ Maodo comme soxna si dañ lay bàyyi rek nga tënk euh, boo amee message booy lancé benn appel booy la nga tënk bu ko defee ñu yëkkati jataay bi ñu sant mbooloo mi soog a yëkkati jataay bi. waaw sëriñ bi euh, daanaka wax ji moom lu cëppoon solo jàll na waaye nag euh, li muy fàttali rek mooy di wax ak waajuru ndongo yi ne leen na seen xel gën a dal te sëriñ bi ñu ko jox moo leen gën ci gone yi bu ko defee ñu bàyyi ñi ñi leen saytu ñu ànd ak ñoom ci loolu ba dara du ci yàqu waaye xale bu fekkee ni ngi jàng foo toll yaa ko jéem a nemm ko di ko jéem a woo téléphone di kii su ko defee loolu dafa am loo xam ne lu lu am lu ay jafe-jafe yu rëy la de andi ci liggéey ndax ki toog di liggéey war a gaaw liggéey ci bis bi nga woo ko ñett yoon wala ñeent bu lay rek lam lay temps boobu sa doom moo ko bokk na doomu jàmbur yi ci daal loolu ngeen ci bàyyi xel bu baax dañu ne sëriñ bi mooy li sëriñ Fallou wax eh, liggéey bi buy boo ko gisee ne xam ne loxo yu bari nañ ci kenn ku nekk nag fa nga ci nekk ña nga la koy sant di la ci ñaanal bu ko jotaay bi day euh, euh, mate woon kenn ku dinañ la tudd fii ndax bu ne jàng-jàngalekat la ñu wax kon jàngalekat yi ñu ci biir ñu yor lépp ci daara ji ci biir euh, sama kàddu nag fi nga ko mujjal ci li ma ci seetlu mooy liggéey bii ni ma ko gisee du liggéey maam Diarra du liggéeyu sëñ Mouhamadou Mountakha du liggéeyu Porokhane liggéeyu Sénégal nañ ko xam liggéeyu Sénégal la kon nanu ko xam ñi ko jiite ñi fi nekk ñëpp nañ xam ne liggéey bi liggéey humanité la waxuma Sénégal waaye ba ci àdduna bi wër këpp war nañoo xam ne modèle bii bu ñu ko jàppee te topp ko dina doon loo xam ne ku ci roy dootoo amati koy jiggaan te jigéen dañoo wax ne arab da ko al ummu madrasatun idaa a'dadtahaa a'dadta sha'ban tayyiban araban jigéen mooy école boo defaree benn jigéen defar nga am nation kon lu ñu doon def ci góor muy baax rek boo ko defee ci jigéen mu baaxal lu baree baree baree bare kon foofu laay tënkee. jërëjëf soxna si kon euh, dañuy wax ne yëkkati jotaay bi waaye bala ñu def ñu beral cant ak ngërëm ci turu fondation bi soxna Muslim Mbacke moom sëñ Modou Moussa Diagne ak euh, way juróomu tedd soxna am euh, soxna Awa Gadiaga di beral aussi ñu ngërëm ak cant soxna Muslim mi nga xam ni moom taxawaay bi dafa rafetoon lool ba dafa jóg ubbi daara ca Touba alalam boppam def ko ci di ngeen fekk ko ci kon soxna soos ñu ngi koy beral cant ci turu fondation bi di ko gërëm di ko sant di ñaan yàlla barkeel liggéeyam boobu ah man euh, bala may tëj kàddu gi dinaa sant ñi ma seetaloon plateau bi muy soxna maam Awa Deme mi nga xam ne mooy directrice des études soxna si ñu ngi lay gërëm mission bi metti na waaye bu ragal dara ndax ki nga àndal moo ca la àndal ci ñaanal gis seen taxawaay yéen gëm ngeen li ngeen nekk leen te foo xam ne fi ngeen taxaw foofu ndax ëllëgu xale yi rawatina ëllëgu jigéen ñi képp ku ko gàddu ci say mag réew mi yëpp la amee njukkal ñu sant bu baax di la jërëjëf di sant waa daara ji di sant directeur général di sant waa fondation bi seen fànn yooyu ñu ngi di ñaanal yàlla barkeel liggéey bi di sant taalibe yi di sant ñi nga xam ne ñëpp ñoo leen di jàppale ci daara ji ndax itam jàngale xam-xam kooku moom mooy bunt bi nga xam ni jàngale ko boo ko yoree bunt boo ubbi mu ubbi te diine moom mooy tey mooy ëllëg mooy fën ñu ngi leen ciy bu baax. di sant itam euh, sëñ Malamine Diouf ndax sëñ Malamine moom fi mu féete foofu la ko soxlaa ndax tey jii mooy fi nga xam ne fii la jëf ji amee te yoonu murit maam Cheikh Ibra Fall jàngal ko ñeent mooy jëf ñàkk jariñu te jëf ci daara ji moom mooy mooy moom rek am njariñ ndax jëf ci daara ji mooy jëf ci xale yi jëf ci xale yi mooy jëf ci askan wi te soxna si tënk na ko léegi ci kàllaama arab bu rafet ah loolu du ma ci dellu si ñu ngi leen di sant bu baax di leen sant yéen mbooloo bi di ñaanal xale yi di leen ñaanal ëllëg bu rafet barkeel ngeen mokkal alxuraan ndax yéen waral ngeen ci àdduna bi yëpp kon ñu ngi leen di sant di leen ñaan ngeen góorgóorlu ñu ñaan yàlla may leen tawfeex ak euh, njàng ak barkeel seen liggéey bi yëpp. maa sant itam ci turu fondation bi ak ñi nga xam ni ñoo ma jox may modéré panel bi maa sant sa chef lu bari di sant euh, comité d'organisation bi ak comité de pilotage bi ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi ay weer gi ñuy réunion ngir forum bi taxaw forum bi duñ dellu si waat di ko li ko tax a mooy fësal daara bi fësal liggéey bi fësal li nga xam ne moom la ñëpp bëgg mooy xale yi am xam-xam am diine te mooy défi majeur bu yëpp àdduna bépp moom lañ jànkonteel tey ñu ko daara ji ni làmp bi tàgg na fii nañ ñaan yàlla mu taal ko ba ëllëg suñu xale bokk ci xale yi nga xam ni dañ di wane fu neex ñu loolu taaral ñuy taaral suñu réew di taaral ah, deru ñuul di taaral Euh, yoonu murid kon ñu ngi sant xale yi di sant ñëpp di sant mbooloo mi ñëw di ñu déglu di sant tam sëñ Abdoulaye Diakhoumpa ak comité organisation waaye maa ngi beral cant sëñ Cheikh Fatma Mbacke mi nga xam ne moom la dugal fekk ko di leen wax ne programme bi day continuer am na yeneen panel am nay am nay conférence ah après midi bi ñu ngi xaar bu ko defee ñu mën a waxtaani mbirum daara ji te loolu la ñuy ñaan jërë ngeen jëf